tey jii koñ bi nga xamante ni moom moo di 16e ci Paris dina xumb daanaka foofu weetaay lañ ko gën a xamee waaye ak match PSG Barcelone bi tey jii dina bëri yëngu-yëngu juróom benn weer ci ginnaaw daje woon nanu ñaari équipe yi fii ci Parc des Princes PSG daanoon ko ñetti bal ci ñaar waaye bi yoon quart de final la te quart de finale bi waa Paris Saint-Germain bëri nañ ci ay joueurs yoo xamante ni